wa sayyidul aaxirina ngeen ji yonen njol makka laqad faaza man kaana rasulun imaamo boobu yonen yaqudu bi naqwan najaati zimaamo yonen njol makka wa kullu man istaxsa alay anaama yonti yàlla Muhammadu Muhammadu rasulullahi cene baa nga سيدنا محمد يا رسول الله لا أسرقت الدنيا بنور بياني ألف على ما فاتني من إياني محمد لمن يحدث منه عن علوم جناني مصطفى بصير بسر الحيب قبل كياني لو يعرم مرمى وترتفع الوجبة كلنا تدمجنا من الأسى leen gën sallallahu alayhi wa sallam njol makka yaa sayidi yaa rasulallah yu xus bi yadi njol makka yaa leen gën maali siwaaka wala alwi ala ahadin muhammadul mustafa fa anta nuurul huda mamadu lamin fi kulli kainatin wa anta sirru nada ya xayra muctamadi محمد المصطفى وأنت حقا غياس الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله ذي المدد نجول مكة يا لنجن محمد المصطفى يا من يقوم مقام الخمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد كل ما سوى كنت مسلم njal makka budul woon ak borom gàmm gi anta ladi yow yonen lawlaaka maa xuli xalam ruun kalla wala xuli xal wala lawlaaka budul woon ak borom gàmm gi anta ladi moom yonen min nuurika albadru atasa wa samsu musriqatun bi nuuri baaka muhammadu rasulullahi anta ladi yow yonen la daaka rabbuka marhaban wala xadnaaka li xurbi wa abaaka muhammadu rasulullahi wal anbiyaawu wa kullu xalqin fil wara njol makka wa ruslu wal amlaaku taqtali waaka kon kay fa ya rabbana fa ya rabbana fi ardi wa samaayi amitna ala tasni qina fi istifaayi fa inna wazul aswaaqi yahya bidaayi يسوق علينا له شضون لقاي إذا الدين لم يكمل فلا كانت في دنيا سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله ñoo gën tagg yonent bi taggal ko suñu pap ba waaye taggal ko suñu yaay ju baax ji nga xam ni teerala nga bu ne dañ koy defal ngir yàlla ak yonent bi salaay salaam kon pap Serigne ci barke sang bii ñu fi tan tagg lépp loo yootu ak lu njaboot gi yootu yàlla nañ ko jot barke Seydina Mohamed salaay salaam allah njugo kaddu gaa ngi noonu Serigne Diop kon teraanga jàngoog cana ba muy teraanga joo xam ni ma ko waxee léegi sa ndono la waaye teel nga ko sa bopp yal yàlla fay su ko defee euh, jataay bi rafet na ba pare li ci war a topp kàdduy teraanga rek lay doon ñu bëggoon ko nag tërali nii mooy dañu jox jël kàddu gi jox ko Serigne Hadi Wade mi nga xam ni Serigne Ibrahima wax na ma léegi nii sëriñ def na nam daan defati mooy teralewaat na jëmmam ay wóllëreem kon du yëkkati benn kàddu waaye sëriñ Hadi moo koy yëkkati ci turam ak turu wóllëreem yi toog yépp su ko defee su yeggalee incha allah euh, porte parole dana yëkkati kàddoom sëriñ si ñaan nu dellu ba déwén nii lanu ko bëggee leneen lu ci tàbbi nag te du yàq jotaay bi du nu ko bañ waaye bala ñuy jox sëriñ Hadi kàddu gi professeur ñu wax la ni la say mbokk ñëw nañu nañu daan ñëwee délégation Baye Serigne Thiénaba ñu ngi nii toog ki ko jiite moo di porte parole am di imam Serigne Cheikhou Amadou Seck mi ngi nii toog di doomu Baye Alpha Mamadou di professeur di borom xam-xam waaye di borom yar yàlla na ko yàlla gën a sàmm ànd na ak moom taawu xalifa bi Serigne Madioje sekk mi ngi nii toog professeur bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fi ñëw itam sëriñ Ibrahima Seck bu Baye Abdourahim moom it mi ngi nii toog sëriñ As Seck borom ndigal moom it mi ngi nii toog sëriñ Baye Diop sekk bu Baye sëriñ Taalaxaar moom it mi ngi nii toog waaye sëriñ Mbay Seck bu xalifa bi moom it mi ngi toog waaye Baye Cheikh Ahmed bi xalifa bi tuddee magam ju tedd ja nuyu doomam moom itam mi ngi nii toog Papa Abdoulaye dee ma dimbali ndax wëndeelu yombul waaw Serigne bàyyi Abdourahim waaw kay borom arabi saudi moom itam di sëtu Serigne Canaba mi ngi nii toog Serigne aadama sekk bu Baye Serigne Taala Xaar moom it mi ngi nii toog waaye Serigne Baye Madike Seck di sunu kilifa moom it mi ngi nii toog El Hadj Pape Mor moodu Biram Diop monsieur le maire Talla Diagne coordonnateur Abdou Ñing dimbali ma Alaaji Malick Ñang Serigne Ibrahima Silla Pape Boubacar Diagne ak commission yëpp wala ma benn bennal ayca yéen ñëpp a ngi ci biir ak noonu kon kilifa gu ma jël turam na ma ko jéggal waaye professeur Serigne xam nañu fi ñëw ñëpp El Hadj Biram Diop mi nga xam ne mooy suñu professeur formé ñu ci lii ñuy def mooy it mi ngi nii toog commis ah sama doomu bàyyi sama sama xarit commissaire Mbeng di sëtu maam Bayat mi ngi nii toog di kilifa moom itam yàlla na yàlla gën ko sàmm. kon su ko defee ñu jox Serigne gi. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala nabil karim seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit ñi kilifa diine fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay ci tur Alaaji Serigne Diop di ko teg ci loxo Serigne Cheikhou Amadou mi porte parole xalifa bi di ñaan yàlla xalifa généralu Thiénaba yal na yàlla rus ci moom yàlla na fi yàgg yàlla na am wiir ci turu alaaji sëriñ ñu ngi leen di nuyu sëriñ Assane ko ameel ay njukkal keroog ba mu soobee yàlla mu toog ci jàllu Seexu ba keroog ba mu njëkkee recevoir alaaji sëriñ dafa jël ijaazatul itlaax jox ko ne lu ma la dencaloon la yàgg na waaye cër la bu la Seexu Thiénaba jox ñaanu ko yàlla wér ndax ñun de yàlla daf ñu nattu ñu naw sëriñ ànd ak moom waaye ñett tax na daf di as gor dafa di jullit waaye dafa ànd ki mbokkam te mag ñu daf ñu waxoon ne ku ànd ak mbokkam àndal ak moom waaye ku góor ba bàyyi ay mbokkam na ko bàyyi ndax ni mu góor góorgóorlu ba bàyyi mbokkam noonu leen di bàyyi kon maa ngi ziare njabootu Cheikhou Thiénaba gi yëpp teew na fi alaaji Pierre Diagne di kenn ci euh, professeur Serigne Diop docteur Malick Ndiaye euh, Maguette Ndiaye waaye teew na fi alaaji Papa Sow di nijaayu soxna maam Awa ak njaboot gi yëpp ma teg ko ci loxo Mamadou mi xam ne mooy moo mag tey ci kër gi bien que magam mu ngi ci mu ngi fi di ma mortal waaye ci tur seen tur ñoom ñëpp njabootu sëriñ leen di gërëm ak di leen sant allah njuga olof dafa ne lu yàgg dëgg la ma ni leen déedéet Firawna yàgg na fi te du dëgg liy dëgg mooy li baax te yàgg lii ñun dañu dañu ànd ak sëriñ rekk gis lii sëriñ yëg na ci xolam cër bi ko cene ba jox ñaata kër ngeen romb ñaata bunti kër ngeen romb waaye dangeen ngeen benn bës nag mooy bés bi xam ne maam Amari Ndaak radiallahu taala anhu wa arda wana bihi amin ba muy tànn ñu mu àndal te Cheikhu Amadou romb fi romb fi maamam te muy jar baa tamit loolu ngeen sàmm mag ñi di ko yor mag ñi di ko yor askanu maam Daawur di ko yor ngeen yor ko ak ñoom ba mu sob yàlla mag ñi dem ngeen jël cër bi saxal ko ca Thiénaba Xaban ni ngeen ñëwee ci kër gi ni amul kenn ci yéen ku xam ne Thiénaba Xaban dina xewle mu am gàllankoor amul gàllankoor te teewul am na kenn ku ma ci mu soxna ma aaji dañ ko ñemewul ndax amuñu lu ëpp maam daawul kon askanu Seexu Thiénaba jërëjëf ngeen may ma rek ma jël sama cant teg ko ci loxo na ku xam ne daf ma bëggal boppam mooy Serigne Assec ñaan ko mu gërëmal ma njabootu Cheikhou Thiénaba yëpp teg ko ci loxo Cheikhou Amadou mi xam ne mooy porte parole ma di leen ne gor ngi ni nit ku ànd ñun ngir yàlla ngi ni nit ku xam ne yëg na li ngeen ko defal bu doon sago du doon at ba at bu doon sago aja maam aw du doon at ba at ndax dafa wax ne ma aadi aw ma lu ëpp kër Cheikhou Thiénaba ma ne ko ne parce que yaay Cheikhou Thiénaba kon ñu ngi leen di gërëm ñu ngi ñu ngi leen di sant maa ngi nuyu honorable ñing eh, di ko jox wàccuwaayam di ñaan yàlla ci barke yonent yàlla Muhammad ci barke Cheikhuna Tidiane suñu sëriñ yàlla bu mu doon suñu mujjantalu daj di leen seedeel ne Pape Mor Gueye nag particulier la ci kër gi amul bés amul xew-xew amul xew-xew buy am wala lu sëriñ nekk te Pape Momar Gueye taxawu ci yàlla na ko yàlla sàmm léegi la ma Alaaji Youssou di wax la présence de monsieur le maire yàlla na ko yàlla bàyyi ñun li mu yenn yàlla na ko yàlla téye ndax dañuy wax ne borom dëkk la woon démb tey monsieur le maire yi mooy borom dëkk moom kon ñu ngi koy dalal jàmm di dalal jàmm ñëpp di ñaan yàlla yàlla bu mu si su mujjante lu daje di gërëm sëriñ nag personnellement ci lum ñu woo yiw la njuga amul kenn kuy ànd ak sëriñ ku sëriñ di ànd yow yóbbu la ci lu xam ne bu la ca dee fekkoon nga am gàcce kon ñu ngi alhamdulilahi rabil alamin di ko ñaanal yàlla di ñaan yàlla di ñaanal njabootu Seexu Thiénaba waaye di ñaanal yàlla Baye Assane yàlla na fi yàgg yàlla na ko yàlla may wér te yàlla na yàgg ci yenn Seexu Thiénaba asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Seydi Ahmed Tidiane ataakum ala qadri al-awaani walaw ataa kenn du Cheikhuna Tidiane jamiul wujuudi laktafaa min ataakum sirif Cheikhuna Tidiane kasaakum rasulullahi irsan wa kam wa kam waliyun tamanna ma bihi qad kasaakum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi Eh, macha allah ñu ànd rek teewlu kaddu yi Baye Serigne Thiénaba macha allah Baye Serigne Assane Seck di ñaan mu yàgg fi lool ci ànd ak wér macha allah doomam di njabootam di porte parole am Serigne Cheikhou Amadou Seck Baye Alpha fas yéene koo yëkkati allah fii nga xam ni macha allah pàkk la ci pàkkam yi kon ñun ñëpp ñu ànd teewlu ko allah. taala wa barakaatuhu nee ñi ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalal Baay Sëriñ Canaba waaw Baay Sëriñ Xasan Sekk di yàlla subhaanahu wa taala di guddal fanam lool yal amin ay yéeneem ci njaboot gi. ay yéeneem ci njaboot gi. ci dëkk bi. ci dëkk bi. ci réew mi ci réew mi. yàlla na ko yàlla kàrtanal yàlla na ko yàlla kàrtanal. defal ko tawféex defal ko tawféex. ba mu mottali lépp ba mottali yéene yépp. njaboot gi ànd ak moom. njaboot gi nga xam ne ñoo ànd ak moom. yal yàlla may leen tawféex. yal leen yàlla may tawféex. ban gën a mën a déggoo ak moom. ba ñu gën a mën a déggoo ak moom. tan fekk lépp. ca ñun njaboot gi ñu fekke lépp. Baay Serigne Thiénaba. Baay Serigne Thiénaba. mi ngi yëkkati kàddu yu nuyoo. mi ngi yëkkati kàddu yu nuyoo. kàddu yu cant. kàddu yu cant. kàddu yu ñaan. kàddu yu ñaan. ci Serigne Diop le médiateur. di ko yëg jëmale ci doomam Alaaji Serigne Diop média médiateur. de la République. de la République. Serigne Diop. nee Alaaji Serigne Diop. Baye Serigne Assane. Baye Serigne Assane Seck. mi ngi lay ñaanal. mi ngi lay ñaanal. Baye Serigne Assane sek Baye Serigne Assane sek mi ngi lay bàyyi xel. mi ngi lay bàyyi xel. njaboot nag. njaboot nag. lii gàllaajam. lii gàllaajum njaboot. fu man di nekk fépp fu man di nekk mu jege xolu kilifaam mu jege xolu kilifaam dëgg la yow de bokkoo ci ñi nga xam ne yow de bokkoo ci ñi nga xam dañuy présenté wu dañuy présenté wu ñu door leen a xam ñu door leen a xam doo présenté sa bopp doo présenté sa bopp say kilifa say kilifa doo présenté sa bopp doo sa bopp sa génération sa doo présenté sa bopp doo présenté sa bopp ndaw ñi nga xam ne. ndaw ñi nga xam xëy na sax. xëy na fekkewuñu. sa carrière sa carrière. kon sëñ baa ngi lay nuyu. kon sëriñ baa ngi lay nuyu. loolu li ciy déggee. loola nag li nga ciy déggee. mooy àddina bi mooy àddina bi ku fi bëgg sax. ku fi bëgg a sax. saw tagg sax fi saw tagg sax fi ñu lay ñaanal ñu lay ñaanal. deel rafetal deel rafetal. del jaamu yàlla ci jaamu yàlla jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi suñu borom suñu borom subhaanahu wa taala subhaanahu wa taala mooy xayyun mooy xayyun laa yamuutu laa yamuutu suñu borom suñu borom mooy huwal xayyu mooy huwal xayyu alqayyuumu alqayyuumu booy jàng ibnu asir booy jàng ibnu asir limal na la ay melokaan limal na la ay melokaan waaye yàlla ci melokaanam yooyu ci melokaanam yooyu moom rek ko jagoo moom rek moo ko jagoo waaye jaamam bi nga jaamam bi nga xam ni nangul na ko nangul na ko dana ko ci cëral dina ko ci cërale yajibu lillahi yajibu lillahi alwujudu alwujudu walqidam walqidam kazal kazal baqaa'u baqaa'u walghina walghina almutlaqu almutlaqu am ci yàlla dafa war ci yàlla te melokaanoo lépp tamit. te melokaanoo lépp moom yàlla. am gum am. am gi nga xam ni yàlla moom am na kon am gi ñu am ñun. kon am gi ñu am ñun. yàllaa ñu dimbali rek yàllaa ñu dimbali rek. wal xidam. wal xidam. jiitu fi jiitu fi. jiitu goo xam ni ni. amul tàmbalima amul tàmbalima. jaam yi ñëw. jaam yi ñëw. fekk ko fi fekk ko fi. lu war la ci yàlla lu la ci yàlla. kadal mutlaqu am. kadal mutlaqu am. kazal xina kazal xina maanaam woomal maanaam woomal ba doo soxlawoo dara ba doo soxlawoo dara dafa war ci suñu borom dafa war ci suñu borom di dund di dund taxawu mën a taxaw mën a ci jëmmi boppam jëmmi boppam ba du soxla dara ba du soxla dara léppam léppam mooy kun fa yakun mooy kun fa dafa war ci borom war ci borom bi waaye jaam bi nga xam waaye bi nga xam ni yàlla nangul na ko yàlla na ko yàlla dana ko def yàlla dina ko def muy dund muy dund ci xooli jaam yi ci xooli jaam yi yàlla dana ko def yàlla dina ko def mu fi aw taggam aw taggam di fi des di fi des te loolu rek te loolu rek moo jar a sonne moo jar a sonne Serigne Thiénaba ngi lay nuyu Serigne Thiénaba lay nuyu. di nuyu sa nawle yi di nuyu mboolem sa nawle yi toog. sa wëllëre yii sa wëllëre yii. nga xëy la xam ni yow fuñ la fekk. ñoom ñoo lay wër. ñoom ñoo lay wër. démb. démb tey tey. tàqali tàqalikowuñ ak yow. tàqalikowuñ ak yow benn yoon. ànd gi sincère lool ànd gi sincère lool. keroog bi ñu jàppee réunion bi keroog bi ñu jàppee réunion bi. Serigne Thiénaba lim ma njëkk a wax. Serigne Thiénaba lim ma njëkk a wax. mooy woowal. mooy woowal. alxaaji sëriñ Diop alxaaji Serigne nga yëgal ko ko yëgal ko ko. keroog ma woo keroog bi ma ko woowee. waaye yéene ji. waaye yéene ji. cawarte gi cawarte foo ko takk foo rek. weesu na weesu na ko. Serigne Thiénaba nag. Serigne Thiénaba nag. ñii fi ñëw. ñii fi ñëw. ak njabootam la ak njabootam la te yaa ci biir te yow yaa ngi ci biir njaboot gi. alxaaji Njuga. alxaaji Njuga Mbeng joxe na nuyoo bi joxe na nuyoo bi yëpp te ñu ñii fi nekk te ñii fi nekk laajatul laajatul ñuy guddal ñuy guddal di tuddu di tudd ay tur ay tur maam Daawur Jóob maam Daawur Jóob jàmbaari lislaam ji jàmbaari lislaam ji àndoon ak Sëriñ Cenaba àndoon ak maam Sëriñ Cenaba ci kalimatul ci kalimatul xaq am na mbokkuk deret am nañu mbokkuk deret naam. waaye mbokkook yàlla waaye mbokkook yàlla gi. dafa gën a kawe lépp dafa gën a kawe lépp. mbokkook yàlla. mbokko ak yàlla. dafa gën a kawe lépp dafa gën a kawe lépp. ku ko weddi ku ko weddi. jeexal xuraysin jeexal xuraysin ak ña ca wàlliyaani ak ña ca wàlliyaani te nekkuñu ay arab te nekkuñu ay arab jugee fu sori. jugee fu sori. garaad yan am. garaad ya ñu am. ca yàlla ca yàlla ak ña ca bokk ak ña ca bokk sàggane bi sàggane yonent yàlla Muhammad buñ koy gis ak bët buñ koy gis ak bët seeni xol gisu ko seeni xol gisu ko ak see seenuk suufe seenuk suufe foo ko nat weesu na ko weesu ko ñoom kon maam daawur kon maam daawur Diop ku bokk ci moom ku bokk ci moom doom doom sët sët sëtaat ba ilaa yow lii rek lii rek la ñuy xaar ci yow ci yow lii rek lii rek mooy sabtaar mooy sabtaar jàngal nga àddina yow jàngal nga àddina gis nga ak njub gis nga ak njub kenn du ko natt kenn du ko natt ci xam-xam nit mën naa jàng alquran nit mën bay gàgganti ko bay gàgganti ko te yàlla du ko may te yàlla du ko may xéewalug njub xéewalug njub xéewal la tudd de xéewal la tudd ndax yàlla ci loxol yàlla la nekk ci yàlla la ne amul kenn kuy julli kenn kuy julli farata farata naafil la naafil la wala ngay ñaan wala ngay ñaan doo wax ni te doo wax ni ihdina ihdina assiraatal almustaqima te doo ko tëjee wal haadi ila siraatikal almustaqim dëgg la fii nga aw fii nga liggéeyal réew yaw yow nag fii nga liggéeyal réew mi ci say biiri mbok ci say biiri mbokk ci biir réew mi ci biir réew mi amoo soxlawoo faneen kër soxlawoo faneen kër soxlawoo beneen nationalité soxlawoo beneen nationalité dawoo kenn dawoo kenn ak njub moo la ko may dem ba jël retraite dem nag ba jël retraite yàlla di la sagal yàlla di la sagal fuñ la tuddee fépp fuñ la tuddee ñu xam ni poste bi ñu xam ni poste nga yoroon nga yoroon ku ko mos a yor ku ko mos yor gënu laa rafet laa rafet ab liggéey ab liggéey ak sant yàlla loola ak sant yàlla la ak liggéey mag ña mag ña kon suñu maam Daawur Jóob kon suñu maam Daawur Jóob kuy sëtam kuy sëtam wàccoo na yow wax dëgg yàlla wàccoo na ak yow kër nag kër nag kërug yàlla la kërug yàlla wa iza qiila wa iza qiila lakum lakum tafassahu tafassahu fil majaalisi fil majaalisi fafsahu fafsahu yafsahil yafsahil laahu laahu lakum lakum gis nga kër gis nga kër du yaatoo du ci ay saal ay saal du yaato du ci néeg yu bëri néeg yu bëri kër kër xol moo ko yaatal xol baa ko kër gi kër gi yaatu na ci yaatu na ci waa Thiénaba lool asamaan asamaan yatazayyanu yatazayyanu bin nujuumi bin nujuumi asamaan asamaan la koy taaral la koy taaral mooy ay biddiw mooy ay biddiw ak jant bi ak jant bi ak weer wi ak weer wi wala qad zayyanna sama addunya wala qad zayyanna sama addunya bi masaabiha bi masaabiha wa jaalnaaha wa jaalnaaha rujuman rujuman lishayaatini suuf suuf li koy taaral li koy taaral mooy sew na yi mooy sew na yi dex yi dex yi géej yi géej yi waaye xam nga kër waaye xam nga kër lu koy taaral lu gan mooy gan di fa wàcc di fa wàcc kër gudul ga gudul recevoir ay gan waaye kër gudul recevoir ay gan kër gu ràpp la kër kër gu ràpp la bi du waxantu yonent yàlla muhammad du waxantu du yàgg-yàgg du yàgg-yàgg ba alquran ba alquran juutu juutu moo tax moo tax li alquran di yaxal yonent bi yonent bi wax ko wax ko yàlla nañ ci tënku yàlla nañ ci tënku ñun yonent bi nee na yonent bi nee man kaana man kaana yuminu yuminu billahi billahi wal yawmi wal yawmi aaxiri aaxiri falyukrim falyukrim dayfahu dayfahu bépp jàngale bépp jàngale boo xam ne boo xam ne yonent bi yonent bi daf koo tënk daf koo tënk ci gëm-gëm ci gëm-gëm na ngeen ci def attention def attention hadis bu gàtt lay doon hadis waaye mooy caabi aljanna doon caabi aljanna ñun nag ñu fi duggee nag nii ñu fi duggee sant nañ la nañ la ci kanam gi ci kanam gi ci yaatal gi ci yaatal gi ci mbégte mi ci mbégte mi ci berne yi ci berne yi door a ñëw wax dëgg yàlla door a ñëw basaasatu wajhil mari basaasatu wajhil mari wajhil mari xayrun xayrun min alqiraa min alqiraa fa kayfa fa kayfa bi man yaati bihi bihi wa huwa daaxikum nga nga kanam gu belli nee kanam gu belli mooy recevoir gan mooy recevoir gan mooy taral mooy teral gan teral gan gan ñëw gan ñëw nga yaatal ko nga yaatal ko te joxoo ko dara joxoo ko dara waaye sa kanam waaye sa kanam belli ci moom belli ci moom teral nga ko kooka teral nga ko kon ñu ngi ñaan yàlla waaye kon ñu ngi ñaan daal yàlla subhaanahu wa taala subhaanahu wa taala lii nga xam ni lii nga xam ni yaa ngi koy def yaa ngi koy def yàgg na lool yàgg na lool te yërëmoo ci sa bopp ci sa bopp waaye teraanga waaye nag teraanga mi ngi ci loxol yàlla mi ngi ci loxol yàlla yàlla mi am teraanga yàlla nag mi nga xam ne moo am teraanga yàlla na la yokkal teraanga na yàlla yokk say teraanga wax leen amin te saxal ko ci say loxo te ko ci say loxo ñun ñi fi teew ñun ñi fi teew nag yàlla na yàlla nañu yàlla defal yàlla nañu yàlla defal fajuk aajo aajo ci zahir ci zahir ak ci baatin ak ci baatin gàmm gi ñu jëm gàmm gi ñu jëm yàlla na ko yàlla defal yàlla na ko yàlla defal wax leen amin yonent bi yonent bi bis boo ko dëgmalee. bis boo ko dëgmalee. ami calcul wala nga tiit wala nga tiit. umpale nga ko. dëgg dëgg umpale nga yonti yàlla Muhammad. yonent bi. yonti yàlla Muhammad. xayyan. xayyan. wa mayitan. wa mayitan. yàlla. yàlla. da koy sagal. koy sagal ab sagam. ab sagam du sàgg ku mu. kon kaddu yi. kon daal kaddu yi. kaddu yi sant la yi sant rek la. kaddu yu gërëm la kaddu yu ngërëm rek la. kaddu yu ñaanalante kaddu yu ñaanalante la. ñenoo njabootu Serigne Thiénaba gii ba teew gii fi teew nag. ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan. ci seen barkeb maam ci seen barkeb maam. ak barke muqaddam yi ak barke kër gii kër gii. yàlla na bokk ci kër yi nga xam bokk ci kër yi nga xam ni malaaka yi malaaka yi bu ñu taxawee bu ñu taxawee bokk na ci bokk na ca kër yi ni gindi konte kër yi gindi konte fii ci kaw fii ci kaw suuf yàlla na ko yàlla def gépp kër goo xam ne gépp kër goo xam ne mi ngi dund mi ngi dund bi nuurillaahi nuurillaahi noonu lay mel noonu lay mel yàlla mën na ko yàlla am na ko yàlla ko yàlla def na ko yàlla def ñu ñaan yàlla ñu ñaan nag yàlla subhaanahu wa taala subhaanahu wa taala suñu daje bii suñu daje bii yàlla bu mu nekk yàlla bu mu nekk suñu mujjug daje suñu mujjug daje ñi ngi ñi ngi sant ñëpp ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp ñi gërëm ñëpp may lancé waat appel may lancé waat appel ci liggéey canaba ci liggéey canaba nan góorgóorlu waaye mbooloo mi nañu góorgóorlu gis nga canaba gis nga canaba fii laay tëjee sama kàddu laay tëjee sama kàddu mag ñee ñu ko fàggul mag ñi ñu ko fàggul du suñu njàmbaar du suñu njàmbaar amul kenn ku fi sos tool kenn ku fi sof amul kenn ku fi sos. amul kenn ku fi sos. ku ci nekk ku ci nekk. la nekk ci sa loxo la ci sa loxo. tam ëpp ci yow. tam ëpp ci yow. kenn nit kenn nit ñaari nit ñaari nit. ñoo la ko fàggul ñoo ko fàggul yow. kon dëkk bi kon dëkk bi du yàgg-yàgg du yàgg-yàgg ba yàlla wàcce ba yàlla wàcce ay malaaka ay malaaka ñu ñu koy liggéeyal ñu koy liggéeyal du yàgg-yàgg du yàgg-yàgg ba yàlla wàcce ba yàlla wàcce ay junne ay junne ñu ñu koy liggéeyal ñu koy liggéeyal ñii fa dëkk ñii di njabootu Seexu Thiénaba ñoo koy liggéey ñoo koy liggéey man de maa ngi tàllal sama loxo man de ngi tàllal sama loxo ñëpp ñëpp ku am xel mu xalaat xel mu rafet xel mu rafet maa ngi lay déglu maa ngi lay déglu ku xam luy doxal doxal dëkk bi ku xam luy doxal dëkk bi maa ngi lay déglu maa ngi lay déglu surtout nag surtout nag ci njaboot ci njaboot gi bëri na njaboot yoo xam ne bëri na njaboot yoo xam ne ña ngay yewoo cana ba ña ngay yewoo ba waaye man war nañoo waaye war nañoo mën a génn cana ba mën génn sax cana ba ku ci xamu yoon ku ci xamu yoon man de danaa ci xëy de danaa ci xëy danaa ci gont dinaa ci gontu la yonent bi waxoon la yonent bi waxoon ni booy séddale ni booy séddale nekk euh, fexee la mujj la mujj am yow mi séddale fexee la mujj am man pare naa man pare naa mujj am mujj am ci man di doon ci lu man di doon nag waaye yàlla waaye yàlla maa kaana allaahu li yazaral muminina ala ma antum alayhi yàlla na yàlla sagal yàlla na yàlla sutura wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ñaanal leen yàlla ñu hmm. ñaanal njabootam yëpp ay soxna soxna yi si jiitu ñu ñaanal leen parce que tey ji bésu ñaan ñu ñaanal ñu dem ñi yàlla jégal leen ñu yéene waale ci ñun tam suñuy newi bopp ñaan suñu yaram yi bopp yàlla def wér suñu kilifa gën am itam muy bàyyi seen kanam ñaanalaay ko yàlla dool li sukuraam dool li wéram ñi nga xam ne ñoo yore ay mission yàlla dëgëral leen ak tamit leen wér te jox leen xel mu leer mu ñu mën a doxale ba islam sikki ndax loolu islam ci lay loolu rek laa bëggoon ñu def ko euh, Pape mm. def na ma si Ndiouga def na ma mais <laughs> borom pour du lakk te ñu doon wax ñëpp mën lañu waxal waaye ñaan yooyu rek laay sax amiin waaw Baye Diop Seck ñu la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim walillahi al-asmaa'ul husna fad'uuhu bihaa wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wash-shahaadati wa rahmaanu rahim rabbana hab lana min azwaajina wa dhurriyyatina rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadiir